waaw constatation yi li ko waral mooy ne dafa am population bu fi nekk rawatina di ay gone yoo xamante ne nii ci biir complexe bi ni ko sëriñ bi tëggee dafa am cycle coranique ñoo xam ne daanaka dañ leen dalal ci alxuraan ak jàngal leen ko xale yooyu it ñu waroon leen a toppatoo saytu leen waaye it infirmerie bi nga xamante ne nii seen Cheikh moom sëriñ Abdou Hakim taxawal na ko ci biir infirmerie bi ñu waroon tàmbali liggéey bi ci liggéey boobu it sëriñ bi. wóolu daayira Touba science médicale bi nga xamante ne nii daayira la boo xamante ni ay professionnels yu yëngu ci wàllum santé ay médecins ay dentistes ay infirmiers sages-femmes ak ay vétérinaires ñoo ko seq di ay murid di ay taalibe sëriñ bi dénk leen liggéey boobu ñu ne nag la ñuy tàmbalee ci bisu ubbite gi mooy fexe ba gone yëpp ñu seet si leen déployer ay docteurs ci fànn yëpp rawatina ñi seet gone ñu leen tuddee pédiatre waaye ñiy seet wàllum der muy dermatologue yeeg ci aju yëpp ñu am consultation générale seen wàllu wér gi yaram ñu xool fu mu toll xam liñ duggee ci biir université bi ndax bu ëllëgee seen dossier médical topp gi day daal di yomb incha allahu taala. waaw matuwaay bi ci jiitu mooy fexe déggoo ceeg autorité sanitaire yi ñi nga xam ne ñoo yollu wàllum faj te teewal fi ministère de la santé muy district sanitaire bu Touba docteur Ndeye Maguette Diop jiite ko. waxtaan ceeg moom xool nuñ koy coordonné ginnaaw gi bi ñu jàppee bis bi ak naka lañ koy defee mooy taxawal une constatation mooy seet xale yëpp dèjà ci tàmbali gi ku ci am jafe-jafe bëñ ñu am ku ci xam jafe-jafe asthme en tout cas malade li ñu tuddee maladie chronique feebar yoo xamante ni am naa da ngay wëy ak moom sa géeru dund ñu xam ñu mën leen a topp loolu nag buñ ko xasee ba kii rek la cay jiitu mooy fexe ba xool fajkat yi fi ñëw fajkat yi boo dee xool toll nañ ci fanweer ñi nga xam ne ay infirmiers paramédicaux lañ ñoom it ëpp nañ fanweer boole kook pharmacien yi ñi nga xam ne kenn ku nekk ñoo jàpp ci liggéey bi ndegam dañoo ñëw ngi seetleen leen si faaw ñu indaale ay garab nga xam ne yenn feebar yi nga xam ne fekk nañ ko fi te mënees na koo faj fii ñu faj ko fi mu jàll ñi nga xamante ni dañu am problème mu gémmiñ ak bëñ ak yooyu loolu seet lañ leen li laaj traitement ci diggante bi léegi ñu def ko li nga xam ne nag day laajaat ñu jàppaat yeneeni bis ndax ndongo yi xaw nañoo takku te liggéey bi du neex a amal ci benn fan daanaka suivi lay doon. waaye la ca am solo mooy barabu fajukaay bi danañ ut koo xam ne moo fay nekk Touba Santé médical spécialisé ñu ngi fi saa suñ soxlaa dara rek ñu mën a déployer ñooñu ñu ñëw seet xale yi incha allahu taala. alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xeyra xadimihi ngi tàmbale sunu kàddu ci ab nuyoo akub ziyaar di ko jëmee ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu boroom bàyyi ko fi te may ko wér ba mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mën ko def te ànd ko ak moom di balu aq mboolem jullit yi di leen siyaar ci weeru tedd yi chahru ramadan al mubaarak di weeru sëriñ bi waaye ñu nekk nag ci fukki fan yi ci digg bi moom itam sunu borom dale yëpp yàlla na ko yàlla na ko ci defal tey nag ñu teew fii ci ndigalul sëriñ bi ci mu jàmma Cheikh Ahmadul Xadim li tarbiyatu wa takwin di indi ay cant ak i ñaan ak ngërëm jëmee ko ci mbooloo mi nga xam ne mooy Touba waa Touba assistance médicale di ay bokki taalibe yoo xam ne naka jekk dañoo nekkoon ci liggéeyal sëriñ bi dañ ko tàmbalee ay tuut tànk lañ daan ko defal a Cheikh Saalih yal na yàlla fa fayal na ko te taasuñ ci barkeem daan dem ci daara yi di ko jàppale booba ñoom ñu doon ay ndonga di ko def ko seef lool ba yàlla dogal tey alhamdulilahi rabbil alamina ñu mottali seenum jàng nekk ci bare bu fajukaay yi yi gën a kawe ci réew mi am ci mbooloo mu nekk fii ci hôpital Cheikh Ahmadul Khadim bu yees bii ak ci mboolem hôpitaux yu nekk ci senegal tey nag ñu am bis boo xam ne dañ koy ñëw fii ci daara ji ngir saytu ndongo yi nga xam ne ñoo fi ñëw ak jàngalekat yi itam ndongo bu ci nekk ñu saytu ko ubbil ko li ñuy wax dossier médical mooy xam wér-gu-yaramam fu mu toll ñi nga xam ne amee nañ ci xëy na ay tawat yoo xam ne jar na ñu di ko topp ñu di leen topp ñi nga xam ne itam yu saw sewaan lañ am ñu saafaraal leen ko waaye mu doon nag dossier boo xam ne waxtu wuñ soxlaatee hôpital bu mën a dem muy Cheikh Ahmadul Khadim wala Matlabul Fawzeyni wala Ndaamaatu wala muy sax Ndakaaru bu ñu gisee dossier boobu rek danañ xam ne kat kii nangam lañ war a seet ci moom mu doon lu ama am solo nag kenn ku ci nekk itam day am ab numéro ak léppam. loola dafa ñuy dimbalewaale noonu ci nos gi nga xam ne moom la ñu nos liggéey bi fi ne lii nag day firndeel rek ne sëriñ bi lu nekk am na ko te lépp lum soxla rek mooy ñëwal boppam noonu ma ko waxee rek ci ay barab yu baree baree bari ne lépp lu ma soxla rek sunu borom dana dama koy da koy indi mu teew ci sama kanam lii firnde la ci ndax dong yi bi ñu fi ñëweek léegi yàggagul loolu waaye mi ngi bëgg a yàgg du ci ñàkk ay benn benn yuy am ay ay ay ay ay yittewoo kër docteur waxoon nañ sax ku fi ñëw na indaale euh, na ko docteur seet bala moo ñëw waaye teewut xamoon nañ ne dañ def lu mel nii tey nag ñëw mboolem ñu fi nekk ñu seet leen ci suba ba tey ñu ngi fi fan yëpp tam ñu ngi ko doon waaj loolu day gën a dalal xel yi waajuru ndongo yi ñu xam ne kat njaboot gi ñu indi fii ci daari Cheikhul Khadim wàll yëpp ñu ngi leen ci saytu njàng bi moom kenn waxalewu ko njàng ma gën a baax lañ leen di jàngal ndax ku ci nekk dañ laa tàggat tànn la ci sam njàng waaye ci sa jikko ak sab yar yar bi itam nag yarub murit na ko Cheikh Ahmadul a waxoon ne daara ju yees ja la bëgg a fëggewaat gilin ya gën koo xambaat mu gën a berax berax mës ta fay waaye gën koo fëggewaat mu doon lu am solo ndax dajale gi mu leen fi dajale ñu màggandoo fi jàngandoo xamante ñu yar leen yar ba ku baax ki defoon ca mag ñu njëkk ña loola day tax ëllëg bu ñu ko defee ay génération ay génération day mujj ñoom ñëpp daanaka benn yar bi la ñu am te dañu xamante te loolu nag booba la amoon solo lool baax waaye fii mu jamono da ko soxla ndax fi ne jamono ji ni mu mel delloo si waat njàngalam sëriñ bi rek moo ko mën a defaraat loolu la Cheikh Mouhamadoul Mountakha def fii waaye ñëpp wuy ko nag mën nañu yoon morit bépp ñoo daje fii ci daara ji moo tax nag sëriñ bi jox leen dayo boobu yi waaye ba ci jullit yi bokki jullit yi mën naa ko wax ndax am na ñoo xam ne sax bokkuñu ci tarixa murit waaye indi nañ fi seen njaboot ngir xemmeem liggéey bi ñu leen di xamal ne nag ci wàll yëpp nag nii ñu leen saytoo ci njàng mi di leen sayto ci yar bi noonu la saytoo seen wér yaram seen ñëw bii doon lu am solo ñu leen ci sant di gërëm di xam ne sëriñ bi ngeen koy defal waaye am na pay kon yàlla na leen gën a dëgëral gën leen a barkeel gën a yokk seen xam-xam te métier yëpp a baax liggéey yëpp a baax waaye mii ngeen di def nag da cee rawati moo tax sëriñ bi am na ci mbégte lool xolam sedd na ci nee na xelam dal na ci rëtéex noonu la ko waxee bi ci guddi rek leeral nañ ko ne ko tey fi ngeen di yandu te bu ngeen fi jógee incha allah li fi jógee lépp danañ ko ko leeralaat ndax fii moo koy toppalal boppam jëm ci liggéey bi amul waxtu amul bis amul barab lépp moo koy toppal boppam lépp itam mu xam ko lool macha allah kon daal lii liggéey bu rëy la bu dal sunu xel la bu wanewaat itam dayob liggéey bi la waaye bu wane yitte ji nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha jox na ko liggéey bi ñi ko dénk itam ñu am tawféexi nekkal ko ci it duñ ci comp dara la ko tàmbalee ci programme pédagogique ba tàmbalee ci jàngalekat yi tàmbalee ci ndongo yi fiy jànge ba ci administration bi dañ ko teg ci yoon boo xam ne day dëppoo ak administration yi gën a am rigueur ci ci ci ci réew mi wala ci àddina bi laay wax secteur général bi fi ñëw bu yàggul barki bi dañu waxtaan mu ne ma fi mu nekkoon mooy institution bi njëkk am habilitation institutionnelle ci ci ci ci ci ci ci réew mi mu ne ko loolu loolu nag yow mooy saw sas fii te loolu institution euh, mën nañu wax ne publique la dañu ko nag bii dañoo bëgg mu nekk barabu privé bi nga xam ne mooy njëkk am Mm, loolu moom itam ci ci ci habilitation ci ci ci ci ci ci université privée yi kon mooy ne dañu koy teg ci yoon mu dëppook lépp loo xam ne moom la norme standard qualité yi laaj ñun foofa la ñu tàmbalee jéem a wut lu ñu teg ci kaw ni ma ko ci kaw ni ma ko doon waxee. gis ngeen barki démb naafile gi nga xam ne dong yi nga xam ne indi lañ leen ci majalis bi te teñ mokkaloon alxuraan soog fee ñëw macha allah ñu bëgg ñoom it sàmmal leen mokkal googu ndax alxuraan boo ko sàmmul day rëcc. ñu di ko tari waaye di beqiwaale fa seen fee bindaale kaamil wéer nag di jàgg ci njàngu majaalis bi ba li fekk seen mboorob yii di sogo seen rakk yi di sogo dal ñoom itam jaar ci yoon woowu incha allahu taala léegi tey ñu daal di tàmbali gis gis meññet mi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu sëriñ bi di leen ñaanal di leen xamal ne lii dey yàlla rek am payam waaye nag koy jëfal sunu borom jaare ko sëriñ Touba na sa xel dal ndax sunu borom da koo nangul te bu nangoo bu dutu gàntu te lépp sëriñ bi suñu borom nangu na ko Cheikh Abdoul dafa mas wax ne boo amee euh, wala sëriñ Cheikh xam waaw ñoom ñëpp koy wax ñoom mag ñu baax ñi wax ne bu fekkee dangaa yor loo xam ne daa bariwul te nga bañ mu jeex dangay fekk ko yor lu du jeex nga booleek moom defe naa dégg nañ ko Cheikh Abdoul Ahad mu ne kon mu ngi mel ne rek ku am sa sa satal ak ndox ñëw fekk borom géej nga sotti ko ci bu boobaa da ngay bokk da ngay bokk ci géej gi rek bokk ca ndox ma Sëriñ Tuubaa la mel ku jël sa mbir dugal ko ci mbiram dutoo jeexal mukk ndax moom daraam dutu jeex te it sunu borom nangu na mbiram day nanguwaale sa mbir kon daal cant gi moom amut fu mu tàmbalee amut fu mu yem te lii itam day sax nga xam ne day am infirmier bu fi ne ci poste de santé bii nga xam ne sëñ mu monsieur Abdoul Hakim moo ko fi def féete fi waxtaan nañ ceeg um, soxna Ndeye Maguette mi fi nekkal mi waa ministère waxtaan nañ ceeg directeur des ressources humaines ñu koy sant moom itam ci taxawaayam ak pës-pësam ak yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey bii waaye mu lëkkaloo nag ak institut supérieur bi nga xam ne mooy jàngale wàllu wér-gu-yaram te ay ay ay ay ay docteurs yu xarañ na fi ay professeur nekk fi waaye lëkkaloo nag ak hôpitaux yi ñoo nekk Touba tàmbale ci hôpital nga xam ne ñu bari ci yéen fa lañ bàyyi koo mu doon boo xam ne moom moo mu bokk tur waaye tàmbale jaar ci hôpital Matlabul Fawzayni bii nga ne dongi Sëriñ Touba yi ko tabaxoon moom itam moom itam mu bokk ci liggéey bi waaye hôpital lu Ndaamaatu bee nga xam ne moom itam ci dëkk bi la nekk nekkal fi askan wi nekkoon fi ñu tabaxoon fukki ci ndigalu Cheikh Abdoulaye Lahad ak mboolem centre de santé yi ñëpp daal dañoo mànkoo rek kenn ku nekk ne liggéey bi daal sama liggéeyee waaye nga xam ne lii daal moom sant nañ ci gërëm nañ ci sëriñ bi nee na xolam sedd na mi ngi leen di ñaanal waaye nag ki ngeen di lebal amul pay eh, amul ñemewut bor dafa am pay te ku ko lebal de bu la fayee da nga xam ne yàllaa la fay ndax moom du jeexal dara te ma waa tuqaddimoo li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah huwa xayran wa azama ajra man da la si yuqridullah xardan xasanan fa yudaarifuhu la adaafan nu mu ko soobee rek boo ko joxee li nga am ak fi nga toll nga koy joxe waaye bu lay fay moom na mu toll la lay fayee yàlla na yàlla motal yëpp te àggal yéene ci barkeb Sëriñ Tuubaa mm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu